ñi waxtaan mané ko ah, nit de jëf rek mo am solo juddu domo doomu yonent laak doomu khalifa doomu bour laak doomu damel ak tey loolu amul solo li am solo moy yitté bo défé yitté dama am ben jour man dama yag bari man-man bëgg daayira yi ba may am ndaw ba légui ma ngi ci di courti courti ben jour nak may nga bo nekk jigen ci suñu bir kër nit ñi ñu ngay wax ah, ma ñëw di tax sama papa ba xam limay nah, def ndax neex nako ko wala neexuko ko ma ko ba nit ñi duñ ma ak yow ma ah, ci lan ya ah, may yëngu rek te man nga dama bari solo ay nak ki nga ma tax mu dem ah sa tarbiya mam la mënuma ci dara ma ka nit ah ni damay bañ nit ñi ñëw di wax leneen ci man mané ma yitté rek mo am solo goor amul jigéen amul ne ma yitte góor mën na koo am jigéen mën na ko am daal di may jox exemple ne ma gisoo Benazir Bhutto xanaa yitteem moo ko may lii kon nag man man yi munoo yéen yitte rek moo ko may lii mu am ah di euh, encourager parce que baatu encourager